doon ànd ci euh, yu raat xëtu yu nekkaay yëpp des ko fas yéene yaatal ci kanam a kanam bonsoir neem soon suñu borom na nga def mal. maa ngi sant yàlla ñu daal di kon door ak l'observateur. jaajëf observateur googee la ñu koy doore ak gëstu bu yàbbu xëy na ko def ci wàllu ngóor jigéen journal bi jox kàddu gi ñenn ñi bokk na ci di Gassama mi jàpp ne góor ak jigéen yu ànd di sëy loolee maanaam euh, euh, dal mbir la moo xamante ne ji euh, kenn waru ko pénaliser kii di commissaire Sylla moom jàpp ne am na ñu jóg ngir fexe nu ñu dugalee mbir moomee ci wàllu juridiction yi Modou Diagne Fada di député mukk ci député boo xam dana ko mos a yóbbu ci assemblée nationale ngir ngu woote ko maanaam daganal ak ngóor jigéen Moustapha Diakhaté ne moom du ca wax docteur euh, Abdou Khoudia Diop ne téeméeri góor jigéen yoo jël ci Sénégal juróom-ñeen fukk yàq juróom ñi am nañuy gel ña des am nañu euh, jabar Socé Koto mi doon tàggat suñu gayndey lu tax mën a tuta dem observateur nañu fii la mën a fédération bi ndax ñeenti objectif la ñu ko fixé loon ñett ya moom la euh, maanaam ñett ya rëcc na ko loolu yéenekaay bi xëy ci dikk ak ñun meneenum mbir fan yee moom mannequin bi daal nee nañu des koo dàqe woon ci hôtel de Radisson euh, di ko tuddal mbirum sàcc ak lu ni mel journal bi l'Observateur dem ca ba jeex am na sax gëstu boobu def na ko ci la mu feeñal daal moo di ajandooy la tax ñu bëggoon koo tëbale ca dem rek langal ko fa benn waay boo xamante ne waa ji borom xaalis la waa ji muñ muñ mënatu ko muñ ca la woote ngir ñu dikk jëlee ko ajandooy mile ca fekk na lu ko jiitu nag am na mannequin bu fa jooxoon fenn ndaw sàcc fa montre bu moo tax ba ñu gisee aja la ñuy wax naan ku ndubin rey boo gisee lu ñuul daw observateur moo bind loolee la Sénégal xëy dikk ak ñun ci agence euh, emploi des jeunes de la banlieue ak la fa xew journal bi nañu doxatul ñenn ca nee nañu euh, directeur bu mënu leen a jiite ndax euh, amuti diplôme journalier la woon ci Africa Mer ba mu yegg seeg léegi toll nañu ñetti weer yoo xam ne fayee ko guñu tey nu ko neex lay jëlee nit ña foofee Pam Ngom mooy directeur ba moom tontu na nee na dal ki mu fi wut ba mu fiy nekk li moo gënoon a bon fop moo gënoon a yées Africa Mer la ko fa dugaloon ak na mu fa waa ji leeral na ko nee nañ juróomi nit la du keneen ca la ne ne dana am ñoo xam ne danañu leen dàq Euh, yoonu yokkute léegi yoonu yàqute wala bokk yoonu yokku ca la ñëw laas moo ñu wax loolee yokk googe populaire xëy ci dikk ak ñun ne ñu diwlin geeg soble seek laaj beeg pombiteer bi yokku na tabaski gi kuye bu kon sàkki pexe lu aju ci décret répartition service yéen kay bii di libération ne ñu dafa mel ne ñoom Macky Sall daal dañuy làmbato ko lëndëmtu ndax ci diiru juróomi weer soppi nañ ko juróomi yoon le quotidien xëy dikk ak ñun ci wàññi gi am ci wàllu fiscalité yi ci salaire bi waaye dafa mel ne dañu ko jële dugal ko fii tax journal bi jàppe mesure googe loo xamante ne daal demul dikkul le quotidien sud quotidien xëy dikk ak ñun ci ko tax a seer njëg yi nga xam ne moo teree nelaw ñëpp jaaykatu xar yi ne bokk ci taxe yi ñu leen gàll ak jafe-jafe yi ñuy daj ci yoon beek xont beek ni mu seere moo tax mu yokk le soleil ne ñu jëw din géeme wàllu càmm gi di Aminata Mbengue Ndiaye la mu xam le moo di eh, daal sàkku ci transporteur yi ñu yombal paas bi ba ñu mën dem kaay di fa jëlee xar di indi Ndakaaru xam le ne démb ci Louga ne lii di eh, xar yi seenug njëkk eh, xar yi kon doy sëkk ko ci bopp réew mi

ci gouvernement Abdoulaye Wade ca far dekkee ji ca wetu Macky Sall ñu fal ko PCA ca Sonac journal bi nañu waa APR nee nañu loolee ànduñu ci yéenekaay bi di laaj ndax Macky da cee dellu gannaaw am déet ci li ci a mooy soxna si ba ñu ko falee ak léegi def na ñaar fukki fan tànkam tëgg tegu ko ca foofee nga xam ne fa la war a dem liggéey ñu jeexale ko ak wàllu lamb ak sunu lamb mu dikk ak ñun ci euh, combat Zos euh, Tidiane Faye mi taxaw janvier 2013 ci la ñu koy euh, bëre yéenekaay bi nañu Gaston Mbengue moo taxawal bile combat malal. Gaston ne woon naa ko mu tëgg sama combat.